Mame Mactar Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi waa ñuy nuyu mbokk euh, mbokk waa réew mi yëpp euh, équipe bi yëpp ak mboolem auditeur euh, réew mi FM directeur exécutif ONG Jamra tey ji ñu àddu ci avortement médicalisé mu am campagne gi nga xam ne door nañ ko ay weer a ngi nii fii ci mim réew tey ban jàngat nga def ci boobule campagne waa xam nga campagne bi dafay buule ñoom dañuy jékki-jékki bu financement ñëwee ñu daal di jógati di telli telli waaye ñoom war nañ noppal seen bopp ndax chaque fois bu ñu ne tell ah Jamra avec ses alliés daal di jóg pour baaxee askan wi la bonne information defoon nañ ko fi 2013 defaat ko fi 2016 defaat ko fi 2019 waaye duñ leen bàyyi avec le terrain du ñu nangu ay contre valeurs yu jógee ci dëkku nasaraan yi financé leen ay séminaire ak ay flyers pour que ñu dugal ko fii du jàll alors rawatina nag dañu nekk ci jamono boo xam ne jumtuwaay yu xarale yi koo xam ne na fekkuloo di nga nangu ne jumtuwaay yi àtte nañu ndax le docteur Bernard Nathanson bu ñëpp a xam américain la euh, euh, nekk un gynécologue et obstétricien de de renommée internationale mm. siiw ci àdduna bi war nga këpp ancien avorteur la amoon na ay clinique d'avortement waaye ba machine yu bees yi ñëwee mu di euh, diagnostic prénatal dafa am léegi jumtuwaay yu bees yu koy gunge mooy lu ñu wax imagerie médicale par par balayage à l'ultrason dañu gën ko xam ci baatu échographie moom moo ne pour atte ñëpp tee ñoo fab benn femme volontaire à l'avortement ñu dëpp ko appareil di visualiser en direct ci écran télé ba xam xale bi naka lay comporté wo ndax morceau yàpp bu ñuy lonki la sànni wala ndax kon jël naa vidéo bi jox naa ko beaucoup d'organes de presse am na ñu ci génn ay extrait mais xale bi daanaka xeex bu metti la nekk ak euh, avorteur bu ko diiree wut ko ak ak appareil bi jëm wet bi xale bi daw dafa ci paroi utérus bi ñaan xëy na mu ngay yuuxu kenn du ko dégg ba pare électrocardiogramme bi ñu branché ci biiru ndey bi wane ne battement cœur yi jóge na cent quarante battement par minute yéeg ba yéeg ba yéeg ba deux cent battement kooku koy tiit na alors kon nag werante amul ni te loolu du waxu diine du waxu dara laalu gu ma sax waxu diine que jumtuwaay yu xare yi au niveau de la science médicale wane ne ne bakkan bu ñuy faat la bakkan bu ñuy jaay doole la fekk na sa biiru ndey rey la voilà côté diine itam yàlla dogal na euh, dañuy sant yàlla ndax ñaari kuréel yi fi ne quatre-vingt-dix-huit pour cent de croyants jullit ak catholique confondus moo tax maa ñu sant euh, keroog interview bi ma def man ak abbé Alphonse Seck ci télévision marocaine bi ñuy wax midi un moom mu wax ni que Euh, église rejeté ko église rejeté ni ko dàq na ko parce que ñoom jàpp nañu ne dès la conception xam nga kuréelu l'islam yi sax dañ ciy gis ne comme bu mel ni euh, euh, de cent vingt jours waa chafit nee nañ c'est au bout de quarante jours alors anbalik am lu mu wax tamit anmalikit am lu mu wax waaye église ñoo gën a radical ñoom nee nañ dès la conception ñoom jàpp nañu ne que teew na mm. alors kon ñu ngi sant yàlla ñaari diine yëpp dàq nañu avortement kon nag ñoom amul Sëriñ Tuubaa yu xarale yi wane na ne bakkan bu ñu faat la diine catholique ak diine jullit wane na ne itam suñu borom dàq na ko ci téere yi nga xam ne ci la ñuy yi waaye nag dem bitim réew di jot ay financement bëgg tubaab yi dafi dugal loo xam ne dëppoowul ak suñu diine dañ ci sonnal seen bopp ndax ñoom li leen xaw dal xam naa dañu gëmloo tubaab yi lu ne euh, yaakaaruñu wax ne résistance bi dana dëgg li leen dal dafa mel ni rek mbërum làmb bu sàggane ba jot avance su Gaston Mbengue foo jaar di nga sëgg bëri <laughs> voilà waaye xaw ma fu ñu sëggee bëri waaye du fi léegi nag euh, dañ doon xaar màggal gi jeex rek mm. incha allah dinañ dem ñun euh, nekku ji sëñ Muntaxa ginnaaw bu noppalu koo quelque fa ñu fa jógee dem seeti sëñ ba euh, sëñ Babacar Si Mansour Tiwaawan après dañ def Njaasaan Canaba Ñaseen Medina Baay Laayeen famille omarienne jox leen la bonne information pour ñu xam lii raam lu dangereux lii raam ci dëkk bi di ni mu tëree dinañ dem ba Sénégal accepté loi gi ni mel ah dafa mel ni ngóor jigéen gi rek xam nga neewoon nañu bu Obama waxee rek Macky du si ñemee teg baat mm. fu mu mujjee Obama la jël le vingt sept juin deux mille treize ci salle des banques dëgg la ñu naan Macky Sall daf ko ne on n'est pas encore prêt euh, waaye amul solo gàntal na ko rek le chef d'état de la plus grande puissance technologique économique et militaire du monde Sénégal gàntal na ko nee nañ ko ngóor jigéen duñ ko fi daganale ñi ngeen ngeen ko daganale Centrafrique kenn du ko fi euh, adopté alors ba Obama lajjee ci ñëw fi Justin Trudeau mois de euh, mois de février deux mille moom tamit ñëw dàmbaliwaat ko Sénégal dàmbaliwaat rek ne di fi waaye léegi nag ñoom saay-saay boo ko dàqee ba mu génn ci bunt bi ñaare day jaar sa parenté léegi ñëwaat nañu ca parenteer ba waaye léegi wax yàq biir la ñuy wax même plan bi la rek même lobby yi la c'est des lobby homosexuels et maçonniques ñooy doxal seen programme bi ñu tuddee la nouvel ordre mondial c'est-à-dire wàññi Afrique wàññi liimu jullit yi pour mën a fexe daal euh, seen programme waaye dañu fàtte ne fii Sénégal la alors que ñu ngi sant yàlla ci taxawaayu këru diine te incha allah bu ñu noppalu ko ci màggal gi rek dinañ leen seeti ñun ñëpp ah, ndax féministes yi dem noppalu ko ñi wala ñu delloo xaalis si jàmbur parce que ay sport la ñuy fay ci ne loolu ngeen di yàq yaa xay ana lu gën a rafet ngeen dimbalee ko orphelinat yi nga xam ne dañu orphelinat yaa ngi ci jafe-jafe loyer ñu ngi ci jafe-jafe fay ndox fay courant war jënd biberon mm. war a jënd meew war jënd serelak war a jënd ay couche bébé ñun Jamra ñaata yoon lañuy ñuy ay famille ñëw déy ne euh, seen doom wala seen jarbaat dafa am benn grossesse ñoo désiré waaye ne di ñaata yoon la imam Massamba Diop ànd ak ay ilimaan ñu wéete xale ko jooy ba xelam dellu si du rey xale ñu bàyyi ba xale bi juddu jox ko benn orphelinat benn euh, fële ca euh, Médina les franciscains de la Médina am na beneen bu ñuy wax la rescousse mu ngi Sicap beneen bu nekk Mbuur am na beneen bu nekk Kaolack waaye ñun ki ñuy faral di collaborer ñun Jamra ko mm-hmm. indi jigéen bi bëggoon seen doom ñu wax ak wax ak ñoom ba ñu bàyyi ko mooy bu unité onze Parcelles Assainies bu Ndeye Awa Sagne xale fa doom ja nee nañ ko laaj ñu la sa tur rawati la carte d'identité yoonu ñeekul ni nga ñëwee woon dans la xamal dara bu la neexee sax bul fi ñëwati ba xam ne xale bi ñu nekk bu fi ñëwati waaye xale bi na ko bàyyi ak bakkanam alors xale ba màgg na léegi ba daanaka Ndeye Awa Sadio dafa oowoon Imam Massamba Diop pour ñu ngénte ko pour ñu tudd ko imaam Masamba ne ko ban tur laa koy jox mu ne ah yéen waa Jamra xanaa ngeen jox ko seen tur nday aw Sadio ngi may dégg unité onze Parcelles Assainies alors xale bi léegi mu ngi tudd ab bébé Masamba Diop am na juróom benn at dëgër na ba pare intelligent léegi nag am na ay famille yoo xam ne yàlla dafa leen nattoo mënuñoo am doom ñu toog sëy nañ juróomi at ñu fukki amuñu doom orphelinat yi euh, boo boo defee demande auprès du ministère de la justice daf lay orienté ci orphelinat yi nga dem tànn ñooñu bu adopté ko noonu moo gën faat ba kanam parce que yàllaa leen bind ñu ñuy bindee ñun te gàtt xel weesuwul ndax ñun bi suñu way jur avorté woon ñun duñ fi ne gàtt xel weesuwul nag lala sa ay way jur deful yow nga jóg ne da nga koy def jàmbur mhm. du dëgg ci say kàddu muy euh, criminalisation euh, de l'homosexualité ñu déggoon euh, bu yàggul muy weeru mai sax ngeen door benn pétition yéen ay organisation défense donc ay organisation sax yu ku ci kaw ànd sàmm jikko yi tey jii fu ngeen tollu ci pétition boobule. waaw Euh, projet de proposition de loi jaaroon en 2007. di mm. fi ndem si yàlla si le député de Jamra Abdoulaye Gueye ñu woon moo ko introduire assemblée nationale député bi yëpp. Mm-hmm. député bi yëpp ko ci. muy la loi 2007 31 ñu voté ko le 30 novembre 2007 moom criminalisé na léegi trafic de drogue. trafic de drogue ay trois mois ci six mois minimum dix ans la assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue sant sëñ Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général euh, des Mourides signé na pétition bi ak loxoom ba pare def ci cachet euh, ñu ngi gërëm tamit sëñ Babacar Sy Mansour le xalifa général des Tidianes signé na ko ak loxoom dóor ci tampon moom itam ak ñeneen xalif yoo xam ne bu ma leen di lim dama ragal ji alors léegi nag am na ci ñu xarit ñu bokk ci ñun ku demee ni le député Mamadou Lamine Diallo mm-hmm. voilà euh, la ca des nag ñoom ñoo am xarañteef bi ñoo ko egg voilà waaye incha allah muy ngóor jël muy avortement fii seen place fii du Sénégal. wax ci yeneen xeex yi nga xam ne parce que li li wax lu leer la. Ah. lislaam soxorul. Uh-huh. dafa ne bu fekkee ëmb bi dafa ànd ak ay jafe-jafe ci wàllu wërgu-yaram muy ëmb ci cadre sëy normal wala ëmb daal parce que am na ay ëmb yu ànd ak ay trouble cardiovasculaire ay ëmb yu ànd ak hypertension artérielle yu grave ay ëmb yu ànd ak insuffisance rénale d'accord l'islam dafa ne bu fekkee ñaari docteur mm. firndaal nañu leen lii duñ ko bàyyee mu wéy bakkanu ndey ji mu ngi ci xottu gerte mm. l'islam nee na dans sooy leen bakkeeru ndey ji ci kaw ngeen taxali ko ak ëmb situation boobu rek cote cote cote la l'islam autorisé avortement amul ñaar amul ñett. Mhm. c'est la seule dérogation. d'accord wax ci beneen xeex bi nga xam ne ñu ngi leen ciy dégg mooy yenn téléfilm yi nga xam ne euh, Sénégal dawatul euh, censuré nañ ko carrément ndax gannaaw nag seen xeex euh, gu tout tey ndax jàpp ngeen ne li ni mel servir na de leçon yenn producteur producteurs yi réalisateurs yi. waaw xam nga Jamra léeg-léeg dañuy dëkkal suñu dëkku ñun dañu bañ série yi dañu bañ film yi loolu njuumte la euh, parce que euh, punko yi fi jaaroon yëpp nekk des anciens combattants de l'industrie cinématographique audiovisuelle je veux parler de euh, ngeen si yàlla si Ousmane Sembène di Dil Diop Mame Beyti Moussa Sène Absa waaye surtout ñi gënoon a nekkal en collaboration di Cheikh Tidiane Diop di doon defar série daaree ko ci mhm. kooku gunul benn yoon di ñaari yoon ñëw na waxtaan ak ñun ne dama def série sangam mu ci bëggoon seen xalaat di ku laa biir hmm. ku woyof alors waaye dañ daan defar ay série yoo xam ne dëgg la dañ daan wax li ne ci société bi ndax série loolu lay def inventé dara dañuy wax lay dox ci société bi waaye dañ ko daan wodd autour d'un scénario tellement intelligent que xale yi ku ko seetaan jële ci jom waaye sécurité yi dëgg la ñoom itam ñu ngi wax li nekk ci société bi waaye dañ koy entouré d'un scénario pervers buy def promotion njaaloo am jëkkër am ñetti far ayul dara new ji xale yi di ko seetaan di xeex xeex yi ba mujj ñu jàpp ne lu normal la góor jigéen comme série réew leen bi ñuy xeex ba procureur arrêté ko ñu jàpp ne xale yi di ko seetaan euh, acteurs yi di ay jeunes comme ñoom di émayu euh, euh, di pasteelu di def ay ay faux cils ay faux ongul di regeju ak di dammay yox xeex nañ ko ba jëlee ko fi alors yooyu li ko waral c'est parce que léegi industrie cinématographique ak audiovisuel dafa am ñu ci rax ñu ci bokkul ay hommes d'affaires yoo xam ne choqué tour deret ak futti jigéen mooy seen métier pour am ci xaalis seen yoon ci sàmm la santé et morale des enfants seen yoon di euh, ngir sàmm la dignité de de la femme sénégalaise parce que femme sénégalaise dans leur écrasante majorité ñàkkuñu jom jom di ko jàllale ci YouTube di ko wane à l'étranger chinois yeeg waa Burkina Faso allemand yeeg béninois yi daane waaw sénégalais yi nekk nii la ñu nag loolu du benn dëgg sénégalais dafa am jom fonk boppam am kersa waaye série la ñuy présenté à l'étranger mooy ku ñàkk jom waaw loolu nag duñ ko nangu ñu toroxal jigéen Sénégal moo tax toujours damay naan féministes yi waaye yéen waxi avortement rek di wax lii doo ci wax série yaa ngi futti jigéen comme la série euh, euh, euh, cirque noir di def lu ñaaw futti waaw ñun awartement bi rek ma ne waa baax na di ngeen xam seen avortement boobu di ngeen di ngeen ko di ngeen ko xóoyalaat ñu naan ko waaye fii du fi jàll. alors kon nag euh, sër yi. boo la xeex bi toll. Euh, saay saay yooyu ñu def bindaloon ma benn tribune nag. tuddee ko Jamra arrête ton cirque Macky Sall weddi na leen waaw ndax lu day ni conseil des ministres salle des banquets le mercredi quinze ku ko weddi nga dem dans le site du gouvernement www.gov.sn Macky Sall yëkkati fa kàddu yoo xam ne ñun waa Jamra sax def ñu bet suñu problème yëpp la réglé dafa jox xor bi boraan CNRA le conseil national de régulation de l'audiovisuel joxoor bi baaraam le ministre de tutelle le ministre de la culture daal di naqarlu les dérives yi nga xam ni mu ngi xawi suñuy xar baax di dëggaate suñu dignité ba pare di mettre en danger la santé mentale et morale des enfants daañu leen jox ordre proposé wu leen de daf leen jox ordre de mettre un terme à ces dérives bañ na ko ba nee na leen s'il le sax bu ko laajee ngeen jël ay matuwaay ci wàllu législation ak ci wàllu texte réglementaire ñu loolu lañu yàgg demandé kon nag le le président Macky Sall a validé le cirque de Jamra bi ay euh, un un petit groupuscule de de d' intellectuels. mu mel ni da ngay tontu ci attaques yi nga xam ne Jamra da koy euh, recevoir saa su nekk. kooku rek la kooku rek la parce que affaire série yi ñoom rek ñoo ko xaar xëy na ñoom dañu abonné ci série waaye jamono ñoom duñu xool sëriñ ñun dañu am benn groupe de de veille ay bàjjenu gox ay sëriñu daara ay étudiants ñoom ñooy suñu bët di suñuy nopp ñoom ñu signalé dérive am na mm-hmm. defal ñu ko ci ñu jox ko CNRA CNRA xàcc yatam dóor xëy na ñoom ñooñu di seetaan sëriñ ñoom la xeexu sëriñ yi metti waaye nag ñun am nañu droit sàmm xale yi xale yi ñu bëgg a jàngal ngóor jigéen xale yi ñu bëgg a jàngal njaaloo xale yi ñu bëgg jàngal wax ju ñaaw wax ju bon mel ni série ba doon daw seen TV di kaw kawteef nga xam ne ay dagg yi saaga ndey kese la alors ñun aar xale yi moo ñu am itteel waaye ñoom nag bu dee ñaawteef dafa normal seen ak seen borom ñu dina a ay magum jëmbali Mame Mactar Guèye ñu lay jaajëfal bu baax a baax waate ñu leen di delloo ñu di leen ziar di leen ñaanal yàlla barke liggéey bi incha